حسني على من بفدع الغيب يفتني As-Samadiyya TV moo leen indil application bu bees tàq bu ngeen mën a utiliser ci façon yu wute lool fépp fu ngeen mën a nekk ci Sénégal wala bitim réew man ngeen seetaan maintenant As-Samadiyya TV en direct ak seen ay programmes yu wute lool des émissions des reportages et des événements. yamul ci lool man ngeen am seen ay programme ci application bi sous forme de playlist bien organisée daw leen gaaw télécharge ko ci Apple Store wala Play Store. di sant nag télévision As-Samadiyya bi nga xam ne Serigne Abdou Samad Mbacké mu Serigne Souhaïbou yàlla def na ci xalaatam yu rafet ak bëgg bu mu bëgg a liggéey Serigne Touba ak bëggum liggéeyal yoon wi moo tax mu xalaat ko jëmmal ko ba tey mu bokk ci télévision yi nga xam ne ñëpp koy seetaan ndax njëriñu làmboo ñu koy sant nag di ko gërëm ndax moom xam na ni waxtu ne ci lii rek la waxtu ne mi ngi seet di xalaat nu gën a baax ak nu gën a rafete lépp ngir liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa yàlla def na sax ci weeru koor bi bi ñuy ubbi seen barab boobu amoon naa yéene ñëw fa ngir teewal sama jëm dox sama tànk baag si fa ngir ànd koog moom ànd yéen ndax lépp lu nekk lu lépp lu ma nekk ñu ngi koy ànd man ma itam lépp lu mu nekk it fas naa yéen di ko ànd ak kon ñu ngi koy sant bu baax di ko di ñaanal di ñaan nag télévision bii nga xam ne bokk na ci lenn ci ay xalaatam rek yal na ko suñu borom bokk boole ci télévision yi gën waxuma ci senegal yi yi gën a màgg ci àdduna ndax jamono moo toll foofu ndax. wa laqad wassalna lahum alqawl de yatazakkaruun mooy média yi ñuy wax léegi rek kon nañ xam ne euh, lisaan moom di kàddu lépp ci lay jaar ndax ni bu dugg ci lislaam ci kàddu lay waaye itam bu ci génn tam ci kàddu lay jaar kon kàddu bokk na ci lépp solo waaye ñu xam ne yonent yëpp seen mission yi lii bokkoon na ci mooy di jàllale message kon nag jamono doy dox bu jamono doxee ba nga xam ne lu ñu kii daa toog ci biir këram di ko wax ko groupe léegi da toog fii fu nit nekk ci aduna di ko dégg loolu mondialisation adduna moo ko di kon nag loolu lépp lii bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ne dana jubbante ndax jamono dafa toll foo xam ne képp koo xam ne am nga lu baax te génne woo ko wane ko it nit ñi safaan ba lañ defar def fa te safaan moo gën a yomb dégg nit ñi moom lañ gën a sawar dégg kon day mujj mel ne lépp ab la te fekk ne li baax ab foofu kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yéen ñu ko ànd moom itam te li ngeen ci fas lépp di liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla na ngeen ci dajee ngërëmu Sëriñ Tuubaa te yàgg ko def yàgg ko ànd ak moom السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حزني على من بفادع الخيب يفتني Asamadia TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités. où que vous soyez, au Sénégal comme dans la diaspora. Suivez maintenant As-Samadiyya TV en direct avec sa large gamme de programmes, des émissions, des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant à samadiyya TV sur App Store ou Play Store.